tonton Mass ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. nga produire xale yi jàppale leen en tant que doomu golf tey yow ban jàngat nga ci am ak ban yëg-yëg nga am jamono ji. waaw tout d'abord nag man ba Baol laa du mu doomu golf donc Nord Fara dëkk fii mais golf en fait euh, studio Alien Zik laay enregistré des fois euh, si laa gis booy di entraîné fii quoi loolu moo tax ma jël waa doomu doomu golf yi. Euh, bon fii en fait dañuy def pause pour delloo njukkal booy yi surtout seen. toog ñu gis parce que ñu bëri dañu duñ si daan YouTube duñ télé donc euh, wan leen li seen liggéey seen doom yi liggéey ak trophée yi ñu am noonu la rëy quoi. tey xale yi da gis ci ñoom talent ba tax nga produire lii wala bëggoon a jàppale doomu golf la nan la la initiative bi dikkee. nan la leen di. initiative produire xale yi nan la la dikkee. waaw man maa am bi bind ba pare après bu ma ñëwee a gis booy yi comme man euh, xam naa li ma bëgg dama leen defal casting ku si ñëw rek im image ak loo wax xam nga laay gis rôle boo war a joué par exemple comme euh, Momar nga xam ne moom mooy reetaan chaque fois donc moom dafa dafa ñëw rek commencé ruube ma xam ne moom boo ko joxee rôle boobu dafay am tu vois donc nag dafa la leen formation xam nga parce que boo xoolee image yi euh, bi ñuy rek ndaw dañ trop quoi euh, ay ñoom Lamarana ay ñoom Léo ay ñoom Ami si jàpp si accompagner leen ba talent bi nekk si ñoom mu génn quoi. ñu fekk nga dem indi ñu artiste boo xamante ne dafa toogoon lu yàgg génnul muy suñu tata Ndeye Khady yéen relation nga am moom. waaw Ndeye Khady euh, yàgg na bon man maa euh, dañ ma sa daje benn concert bu amoon CCF parce que ñun dañoo seetaan seen théâtre yi notamment Ibrahima ñëpp ñu faa ko biñ dajee euh, mu ànd ak je pense ay doomam mu ñëw ma ne ko ma yow rek laa fan quoi après nag gisatuma ko ba may dégg def feebar si laa dem wër ko ba gis ko xam nga après bon. ñëw depuis boobu rek on a des relations xam nga euh, fu mu nekk aussi dañuy déggante euh, ma considéré comme sama grande sœur mu considéré comme grand frère quoi. tey jii euh, série bi am ampleur du Sénégal kese ba bitim réew ñëpp di ko seetaan te ñëpp apprécier ban yëg-yëg nga am ci série bi boo boo gisee ni la population yi nawee ci série bon nu ma gisee ni ñu ko apprécier bon loolu je pense que daf leen nduru rek parce que bon série yi en fait am na yoo xam ne nii bëri nañ fi mais. liñ doon wax tamit ñu bëri gisuñu seen bopp peut-être bii ñoom lañ gën a gis seen bopp te te aussi da leen fàttali temps nekk xale xam nga xale dafa neex bëgg bu nekkee day dafay jouer aussi rôle boo xam dafa naturel booy li ñuy jouer dafa si ñoom donc day gis ñoom pas yi mais seen temps booy surtout boo nekkee comme xale bu góor xam nga euh, jouer carte xaalis dem tool ya daaxante xam nga loolu yëpp ñoom dañ ci gis seen bopp beneen bi jigéen ñi aussi ak Adja ak yaayam surtout mère bi ayda nu muy nu muy nu euh, muy mbëkkante xam nga parce que chaque jour nga gis ay maire yu nekk di jaay ay ndekki di jaay ay euh, légumes ak yooyu doo xam nu ñuy dundee ñoom la nag nan ñuy dundee ñoom seen biir famille nan la ñuy fexee ba loolu ñu am lu néew a néew ñu si suturloo parce que suturloo seen njaboot parce que loolu noonu sénégalais bi nga xam ne ni euh, Sénégal bu ñu jege te gisuñu ko ñu ngi koy gis mais gisuñu ko si télé yi loolu la ñu leen wan. gis série bi euh, li ci nekk nga xamante ne du wax kase moo koy def alal moo koy def ak tournée yi nga xam ne yéen a ngi koy waajal dem jur Diourbel def tournée international ba xam dafa am ñu nekk sa ginnaaw di jàppale. waaw bon euh, am na ñaari sponsor yoo xam ne mooy Copper Express ak Dolima bi ñu dafa daanaka si fin bi la mais man su ma amee projet maa ngi liggéey macha allah am na aussi ay projets yu bëri yoo xam ne maa ngi koy def feneen donc li ma am loolu laay dajale et puis ma financé. xam nga donc daanaka lépp c'est financement la parce que projet artistique yi ñu def am na ay sponsors yu bëri muy dama koy wax toujours wan ak si bet ay ay sëriñ yoo xam dañuy dañuy wax dañuy faj lépp ay ay genre ay ngóor ak yooyu yëpp man jëluma leen pour pourquoi parce que dama bëggoon série boo xam dafay am valeur bëgguma xale yi di ko seetaan parce que boo xoolee doon doomu gaynde rek ñoo ko bëgg bëgguma xale yi di ko seetaan ba pare di fa jàngee wan ak si bet wala leneen moo taxoon ñi ñëw tamit ma ne ça cadre avec l'image que je donne du ma leen jël beneen bi mooy aussi bëgg moon sponsor yoo xam da ngay ñëw ñu naan la da ngay teg fii produit beeg da ngay wax naan dafa rafet ak dafa neex non non non on a voulu faire un produit artistique loolu nag saa a un coût mooy euh, li nga xam ne jël nga ko feneen nga siy dugal mais gëm naa ne produit bi produit boo xam ne nii la euh, jàll nañ ko Sénégal mais bëgg nañ ko def anglais français. à part les amul benn autorité wala dara bu la jàppale. à part les sponsors amul benn autorité parce que demuñu si kenn ne ko jàppale ñu non non non à part sponsor yi ñu am te bon parce que li ñu joxe sax lu ndaw la dem nañ ba épisode douze am sponsor te sponsor yi ñu joxe vraiment mënul produire on a investi notre argent dedans xam ga parce que gëm nañ projet bi te aussi ñu yàgg def la yàgg naa def mooy division X boo xam ba léegi mi ngi nekk en problème ak waa waa waa waa waa canal li moo tax mu bëgg def au moins benn produit ñu xam ne en fait Mass am na expertise si affaire série te incha allah yeneen ñu ngi ñëw quoi. à part doomu gaynde ñu xaar yeneen série yoo xam ne ñu ngi ñëw. waaw donc à part doomu gaynde euh, dinañ biir ñëw jigéen ñi lay nekk xale yu jigéen ñi comme yéen comme yow nii dañuy dugg seen biir xam nga te xam naa boobu mooy gën a ëpp audience parce que jigéen ñi ñoo gën a mën a seetaan quoi. daal ñun suñu bopp nañ xaar série boo xam ne ci ñun lay wax. waaw yow naa la joxulul sax journaliste laa lay jox yow. <laughs> merci beaucoup ok